merci beaucoup monsieur le président tey nag dama daan wax règlement intérieur mais dama ciy boole nag arbitre de l'arène de l'Assemblée nationale parce que noon naa mbër moom ci guy rek la yem ndeke am na fii ba ñu yëngale loxo donc monsieur le président monsieur les ministres les collaborateurs des ministres avant tout je vais rendre un hommage mérité à son excellence le président Abdoulaye Wade d'avoir permis aux Sénégalais d'accéder aux grilles du euh, aux grilles de euh, l'Assemblée nationale barricade bi am fii tey amoon fi bi ñuy def parrainage bu Abdoulaye Wade defoon noonu kon tey nit ñi duñu yegg si ba bay feete anniversaire bi mais monsieur le ministre yéen nag yéen yóbbu fiti nit ñi yow nag yaa nar a toj Sénégal yow xam nga lu tax ne bëret ne terrorisme nit ñi bu ñu xamul terrorisme ci Sénégal vivre ñu ko itam ñu ngi koy gis ci Mali la xew la la fa xew mois je de la CEDEAO le Mali a été retiré de l' espace CEDEAO ndax seen terrorisme bi ñuy def seen euh, terrorisme bi ñuy def xale yi sax xam nañ lañ mooy loo xam nañ sax lan mooy la boo nee bëreet wax loolu kañ yow kañ bu nit ñi nelawul lekk ñu naanu ñu dolli ci xiif bi ñu yoroon yow mii la sàll nga baal maak monsieur le ministre damaa wax ni fii daf amu fi li ngeen nar xam nañu ko bàyyi leen mbër gi falang daanu na ba falang daanoo la kenn mënta nax kenn Senghor a daan wax ne réew mi golo xaj la woon bu golo yéegee xaj toog ci suuf léegi nag golo golo la boo yéegee mu yéeg fekk la ca kow nga wàcc mu wàcc li ngeen nar xam nañ ko coloniser nit ñi kenn du meeting kenn du wax kenn du def dara responsabilité bu ca am ñu ne kooka la def ko à perpétuer ngir yàlla monsieur le ministre est-ce que yow am nga xol buy daw est-ce que yow sax sa sa cœur dina yëngu est-ce que monsieur le ministre vous êtes humanisme Monsieur le ministre, est-ce que vous avez des sentiments, sentiments parentaux envers nos enfants mais mosul am dans le monde la képp ku jigéen ëmb juróom-ñeenti weer fukkeel ba xaw laa rey nga yor sa doom ba muy magum jëmm pour des histoires personnelles politiques ñu jàpp suñu doom yi di coup de di dóor wóor na sëñ Fall dama doon jooy les bras les les gros bras léegi ministre de la justice def doo ci wax doo wax ci loolu loolu moo jar a wax képp kuy jigéen bëggatuloo am doom ndax loolu lu ko fi jar Macky démb Senghor la woon Abdou Diouf ñëw Ablaye Wade dikk Macky day wàcc par A ou B seul le pouvoir de Dieu est éternel fii ku fi yor yàlla la ko jox mais soo ko yoree nga rafetal ko nag ba bu ëllëgee boo wane gannaaw nit ñi man laa topp Ablaye Wade bu wàccoon fii tey ñëpp koy topp ndax dañ ko doon xas waaye xam nañu il est le meilleur président de la République du Sénégal monsieur le ministre ma di la yóbbante ci le président Macky Sall garde rouge yaa ko wër généraux yaa ngi ko wër décret yaa ngi ko wër audience présidentielle yaa ngi ko wër nee na yëpp ci boppam ne bis dana ñëw ñooñu danañ ko bàyyi dem wëri moromam ndax fii loo fi gis ci àddina able la yàlla da koy da koo able wax leen lu leen neex wax leen lu leen neex état moo mel noonu c'est notre frère c'est notre frère paternel on a fait vingt ans avec lui fit bi mu yor yéen ñi yéen a ko may waaye am koon xam nañ bu baax ki yee Macky Sall ah? ngeen foog ne rek loolu dëgg la wax ji wax ji fexe ndoonu boon ba ne cinq candidats rek la ñu am bun Abdallah Dione na ko wax fii ma ne ko yow foo dëkk ak foo yaroo foo bokk effectivement c'était vrai yow itam yaa ngi ni lii ngay yoot xam nañu ko kenn du marche kenn du bëre kenn du xeex kenn def waaw on est dans quel on est dans quel pays ci man réew la ñu ne démocratie bi fi Abdoulaye Wade instauré woon yàq ngeen lépp te du tee bu ngeen waree dem da ngeen di dem yàlla moo yor nguur bu devez commencer à telle année et terminer à telle année kenn amul date bi yàlla moo yor nguur c'est Dieu seul Dieu c'est Dieu seul qui détient te li ngeen war a waxu leen ci moi je suis de la CEDEAO on a parlé du parrainage lu tax waxu loo ci le cas Karim Wade lu tax waxuloo ci le cas Khalifa Sall lu tax waxuloo yéen daal yow yaay sëriñ sopp daganal sëriñ sopp daganal li nga bëgg a gis ngay gis li nga bëgg xam ngay xam li nga bëgg a rafetal ngay rafetal mais yow bu dee dossier am nga loo loo def gis nga lii lii ngay wax nii xam nga li ko gën nit ñi dañoo xëy ngeen jox leen ñu lekk ba suur sant lekk ba suur sabaay lekk nga xëy wut am penc am wut loo liggéey ku woote téeméeri manifestation yi ci mbedd yi duñ la ci fekk c'est ça la vérité vous êtes là pour gouverner le Sénégal vous êtes la pour secourir les Sénégalais vous êtes là pour aider les Sénégalais yaakaar gi fii la ne ndax yéen la yàlla jox réew mi dañ nañu noo tële ba dàq ñu ñu dem d'accord nañu waaye yéen ñi man bañ jox leen lu ngeen nu indi diggee bu dul jeex rek lu ngeen diggee yéen daal Macky daal président dajjil ma bi paquet bi nga daj woon daal xaw naa jeex loolu mooy jukkoom pare nañ ci après la vote on va voir monsieur le ministre c'est sûr xam nga lu mu fii ku fi amati doom maa koy mbaa boo ko tuddul terrorisme la loolu nag du am ci Sénégal man tane danoo sonn da ngeen ñoo sonal Sénégal je vous remercie les cinq minutes sont finies. matal ma cinq minutes. les cinq minutes sont finies. les cinq minutes sont finies. c'est autre chose ça mais les cinq minutes sont finies. je donne la parole à notre collègue Mamadou Sow. Moustapha Niass ñoo ngi lay gërëm di la sant ci liñ la gërëmee mooy liñ la fal man nga ko képp ku dëkk ci réew mi moo xam muy député mooy xam ku munti doon war nañ laa gërëm ndax am nga yar am nga teggiin am nga dal yow opposition ak pouvoir yëpp nga yemale ak minoritaire ñëpp ñoom nga yemale képp ku nekk droit bu mu am nga jox ko ko ba mat sëkk loolu moo tax assemblée bu dajee ak lu mu bëri bëri bëri coow dal rek lay def ba li ñuy def ñu def ko ba pare kon war nañ la cee sant